man maay benn sénégalais boo xam ne depuis 2000 liste bu ñu fal ci CEDEAO fal nañ fii ci assemblée nationale mu tàmbalee ci Ablaye Wade jaar ci président Macky yàlla dogal nay ma def mandat ñeenti at boo xam ne bii man maa yor lépp lu ñuy def ci parlement bi ci suma responsabilité la doon defit la ko jiitu ñeenti at yoo xam ne membre du bureau la kon ñaari législature yi passé man maa doon conduire délégation sénégalaise lu mat juróom benn weer ci ginnaaw laa wax ci réunion bureau ni nañ ma dindi ci cinquième législature bi ndax foofa nekkatul suma place ndax mënoo liggéey fukki at ci barab nekk fa ndongo nekk fa sëriñ ba nekk fa ab yonent ngay ñëwaat ne naa nekkaat ndongo loolu it ci juboo ak suma groupe juboo ci ak président de la république avant may dem ñu tànn beneen équipe équipe bi nag ñaar ñoo ci bees kenn ki ku jàmbaar te nekkoon non inscrit muy Oulimata Guiro li tax ñu dindi ko mooy place su jàmbur la jëloon ndax post bi opposition majoritaire ko moomoon ñu waroon a joxe góor joxewuñ ko ñoom ñu gedd boycott non inscrits yi nangoo jël post boobu ñu jox leen ko keneen ki ñëw di Aimé Yacine ñu def ko tête de liste ku yàgg APR la ku yàggoon ci bureau bi la ak commission yi bi ma génnee moo toog suma place nekk tête de bi kon dafa mel ni continuité moom la Sénégal bëgg ndax ñeneen ñi ci des def nañu ak man quatrième législature bi muy Abdoulaye Wilane Souleymane Ndoye Ibrahima Baba Sall Adama Sylla bi loolu foofu laa bëgg a wax ndax dama bëgg rek yëf yi leer kenn bañ a polémique loolu moo ci ne kon ñooñu xam nañu liggéey bi liggéey bi nag li ci am solo te waa assemblée waroon koo wax ndax dañ koo waroon a wax na ko fële waxe ndax Sénégal laa fa nekkaloon nekkaluma fa woon suma bopp mais wér na ne ñun ci sunu biir am nañuy problème ndax bu ma demee ba réew yëpp tàccuma ni li ma def kenn mus koo def te mooy dëgg ndax li ma jël man bu dee benn lañ ma joxoon def naa ko fukk loolu danaa ko leeral ci yeneen i plateau ñu wax ba bàyyi santuñu délégation bi génnoon ku santul da ngaa xar c'est parce que danoo amee problème interne looloo tax defuñu ko loolu maa ngi leen di xamal ne rafetul ra président assemblée moo ko war a wax ndax moo nu yebaloon ci ndigalal Macky Sall Macky Sall moom gis naa ko sant na ma bi ma demee ñu waxtaan ma xamal ko ni damay jébbale loolu avant may dem sant na ma rafetlu na li ma liggéey wax na ko ñaari yoon ba ñetti yoon fii wax na ko ci King Fahd ñëw na Abuja tal avion ngir man pour jàppale ma mais fii bu ma fi nekkee liggéey lu mel noonu dañ koo war a wax waru ñoo toog palam palamal rek nome dem mais suul ker du ko tere fey député la maa ngi fii bu dee ku wax dëgg ñu jéem la classe danañ ma classé parce que damay continuer jouer sama rôle député ndax du lu toog mais di wax lii njariñu askan bu ñu defee ñuq-ñuq boo xam ne président gënalu ko bëggul mu am te dañ ko koy nëbb bu ñëwee fii laa koy wax loolu moom mooy suma position kon loolu moo ci mat a xam man nag sant naa yàlla ndax juróom benn fukki at juróom laa am am naa ñeenti mandat député liggéey naa liggéey boo xam ne la ma wax nañ ma évaluer contrôle interne def nañ ko muy audit interne cabinet allemand ko def mënuñu maa tooñ to joxañ baaraam defaat commission boo xam ne Souleymane Ndoye miy rapporté ab nigérian di sénateur mooy président commission des finances et lañ ma wax mooy def nga lu baax kon Sénégal gi ko waroon a wax mais Sénégal du dem parce que iñaan ak bañ ku la doon te ku deewul danañ la doon ku deeñu ñu doon parce que yàlla moo binde noonu àddina kenn mënul nekk buur dëkke ko di falu ba ba ngay dee ñu la ci pax ku wax fii ni mu tàngee assemblée nationale bi buñ bëggee ñu liggéey xaalis am na fi nañ defar climatiseur yi mais duñ ko defar xaalis bi dañ wax fu ñu koy def loolu mooy problème bi may ma tuuti damay wax lu ma ñor li nga bëgg duma ko wax li ma ñor laay wax assemblée bi tàngoor waa ngi bëgg a rey nit ñi te xaalis am na fi mais gannaaw ku wax dëgg comme li ma sëñ bay Sy Mansour ni ma yow koy wax dëgg nga dee ko wax assemblée nationale ku wax dëgg ñu ne da ngaa mais est-ce que député même boo bokkee majorité te gis lu baaxul danga war a toog na da ngaa war ni lii nañ ko jubbanti ndax président moom day définir ab politique politique bim mu nu dig baax na mais mise en œuvre bi yaa ngi gis tey jii cour des comptes ku ne ñu joxañ la nit nangam mais ñooñu ñu joxañ dañ dem répondre yi dañoo war a dem tontu ji ci liñ leen tuumal dëgg la wala du dëgg am réew noonu lay doxee man loolu laa waroon a wax sant yàlla sant président mi nga xam ne moo a jox liggéey bi mais jàpp naa ni lettre bi ma ko bind te dana ko jot mooy war naa kontaan ci li ma liggéey man bu doon ñëpp def nañu ni mu def président assemblée def ko institution yi directeur yi ministre yi ku ne leeral li nga def nga wax ko mu leer naññ te kenn du ko mën a weddi réew mi li ngeen ci bëgg da ngeen ko am waaye am na ñuy ñuxum ñuxumal te ku leen tudd ñu fay ay nit pour ñu nekk ci réseaux sociaux yi saagaak wax yooyu amul njariñ waaw mais du assemblée of naag dañ ko fee teg bu dee ñoom gis nañu lu jaaduwul kenn def ko mu nekk ci nguur gi dañ koo war a wane fañ ko war a wane bu dee ay topp ci justice am na ñu topp leen ñooñu ñu may leen ñu défendre bu ñu defee dara ñu condamné leen bañ ko bañ leen a yërëm dëgg mooy loolu ndax sunu alal kenn waru koo foyee alalu réew mi kuñ ko jox da ngaa war a rendre compte réduction des comptes bi dañ koo war di def te bañ a ñëw rek di ragalante gannaaw di tàccu lu waay def ñu ne baax na te fekk la ngay def sa poste nga koy defee defoo ko pour kenn te doo rendre compte man loolu moo ci suma xam. taxawaayu Sénégal nag si CEDEAO yàgg na ndaxte su magistère président Cissé Lô bu ñuy rendre hommage si liggéeyam ndaxte tey parlement CEDEAO visibilité bu mu am taxawaay bu mu am président Cissé Lô am na si cër boo xam ne liggéey na ko su ko mënee nag dafa am kilifa ku ko jàppale muy le président Macky Sall. ndax bi Sénégal di jël parlement de la CEDEAO dafa fekk jamono yooyu aussi président Macky Sall nekk président de la conférence des chefs d' état am liggéey bu am solo bu mu si def liggéey boobu nag dinañ ko continuer ci Séné euh, cinquième législature taxawal Sénégal nañ ko daan taxawee si fànn yi nga xam ne ne moom la ñu dénk euh, instance communautaire bari na li nga xam ne ne parlement dina ko wax au delà des des budgets man mi di wax ak yéen j'étais le rapporteur général de la commission des finances du parlement de bi ñun ñoo koy saytu ndax su commission bi liggéey la mu war a liggéey ak euh, comité administration et finance day ñëw parlement ñu saytu ko mais am na yeneen yoo xam ne ne parlement bi daan na ko dox wàllu paix def nañ ay visites yu bëri sous le magistère du président euh, du parlement euh, du président Cissé mais aussi surtout gën a dëgëral libre circulation des personnes et des biens dans l' espace communautaire yooyu ay défi la yoo xam ne ne chaque fois euh, ñu ngi siy débat ñu ngi koy def si rapport pays ñu ñaa ngi koy rendre compte te yaakaar naa si cinquième législature ah vision bi nga xam ne ne président bu bees bi nga xam ne Sierra Leone lay jógee moo koy incarné. Mariama Badiane Abdoulaye Balde. Kumba Balde Boubacar Biaye dawda Dia Awa Dia Sadio ab Aboubacry Diallo Khadijatou Diallo Maymouna Diallo Mamadou Lamine Diallo Mamadou Wuri Baylo Diallo Yaya Diallo. Nos collègues ayant obtenu 101 voix sont élus députés au Parlement de la CEDEAO. Par ma voix, l'Assemblée nationale vous félicite, honorables collègues. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant ainsi épuisé pour ce matin, je propose à l'Assemblée de bien vouloir lever la séance et de reprendre nos travaux à 15 heures cet après pour examiner le projet de loi organique numéro 1 barre 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique numéro 2011 barre 15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances modifiées par la loi organique numéro 26 barre du 23 décembre 2016. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé et la séance est levée jusqu'à 15